démb rek avocat mu ngi koy wax maître Ousmane sey ni fekk docteur bi confirmé na ni dafa jagadi jagadi goo xam ni hôpital wëratul ba kanam mun na fee des tax ci njal benn mu daal di dànkaafu kilifa yi ñii nañ jël seen ay responsabilité ngir mën a sauver dund nit kii mujj nañ ko bàyyi nag coon balaa ko sekk léegi génn na kaso am liberté provisoire ci yeneen xibaar léegi xëy na sax wala xibaar yi jeex des na jéem a jokkoo ci téléphone kenn ci avocat am maître Ousmane Seye wala maître Abdou Dialy Kane ci lu jëm ci wàll boobee moom mi mujjoon a introduire càkkutéefu liberté provisoire ñeel client di Thione Ballago Seck